alaikum guys assalamu alaikum ma di jaar di leen bëggee di leen wax ngeen abonné si seen youtube jaw américain borom américain business bon scène bi nag dama bëggoon leeral tuuti rek li ko tax mooy di xeex gaa yi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi di saaga sëriñ si di xas tarixa yi bi ci gën fes mooy Moussa Camara Moussa bi nga xamante ne donc ñu ngi ba États-Unis di chaque jour mu def live am di xas sëriñ si di saaga sëriñ bi donc di ko def comme nu mu ko neexee ko li tax nag ñuy dugal ay vidéo mooy euh, dañu bëgg ñëpp képp koo xam ne war nga ci jot nga jot ci ba xam li tax ñun ñuy xeex ba xam lan moo tax ñun ñuy nekk ci vidéo yi di wax lu lu nekk loolu moo ñu metti te kenn ku ci nekk loolu war na la metti li Moussa di def kenn ku nekk war na la metti loolu moo tax nag ñu bëgg xeex bi gën a yaatu ñun ñëpp ñu xeexandoo ko tey te jàpp naa ne kenn ku ci nekk si ñun Serigne defal na la loo xamante ne war na tax nga défendre ko ak fépp foo mënti nekk Serigne Touba defal na lu tax nga war ko mën defendre moo tax nag classe Moussa Camara gi waruñu leen seetaan ñuy continuer di wax li ñu wax di def li ñuy def donc bépp kilifa bu ci mën a jot dinañ fexe nga jot ci ba indi ci ay saafara loolu moo tax ñuy jugalaat ay vidéo parce que tamit mbir mi xeex bi waruñu koo xeexee ay nekk moom di saagaanteeg moom kese non non. dañu war a dénoncer pour ñi ko war a xam-xam ko képp koo xamante ne nii donc war nga ci jot nga jot ci ba jéem ay pexe mu arrêté li nga xamante ne moom lay def loolu moom moo taxoon jóg seen bi te loolu ci dañuy continuer du Moussa Camara kese képp ku koy def ñun ñoom sa kaw duñ la wàcc pour le moment nag Moussa moo ci gën a fës moo tax ñu koy gën a fësal dinañ continuer di xeex ak moom fu mu yem neex ah, parce que tamit nag Serigne Touba defal nañu lu tax ñu war a xeex. defal nañu lu tax ñu war ko défendre té ci lolu la nek ba ila yawmi mi din donc lolu moy suñu objectif té lolu moy li ñu xamante mom mo moo tax a jóg YouTube Diaw Américain aca continuer di abonner si sen YouTube Diaw Américain Borom Américain Business peace and love likez la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos